nee na ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mouhamadul Amin Baara mooy xalifa Cheikh Sidil Mokhtar itam nee na mi ngi ci biir mu ne na am nag Serigne Khadim Mbacke ak Serigne Mouhamadou Aïssa nee nañu fekk si waa daayira fédération Mouhamadul Amin Baara ci njiital sëñ Alhaji Fall ak sëñ Saliou sëñ Abdul Aziz Baara nga xam ni lii rekk moo ko ñor xasida yi maama bi Cheikhul Khadim nee na di nuyu mbooleem kuréelu xasida yi fi ci subaak léegi yépp nee na bàyyiwuñ ci kenn nee na sunu mag bu baax ji di sëriñ Cheikh Aliou nee na mbooloom fii ànd ak ñun ci liggéey bi nee na ku ne xam na diggante Daaru Xuddus ak guy mbind genn kër la nee na kon ñu ngi sant ñëpp nee di gërëm ñëpp nee na di jël nag ci nuyoo bi di ci jiital waa Touba Asalem nee na ndax Asalem dañoo dëkkandoo ak sëriñ bi nee na sëriñ bi nag moo leen tànn nee na def leen ay dëkkandoo ñu dëkk ak sëriñ bi dëkk yi mu rafet nee na ay année quatre-vingt-six nee na du ko sori diggante boobu nee na boulevard bi biñ koy tuddee corniche Cheikh Mouhamadul Amin Baara nee na boobu ni kër Cheikh Mouhamadul Amin Baara dana nekk ci boulevard bi nee na waa asalem ak seen Baara yàlla leen boole nee na sant nañ leen bu baax a jataay bii nag di jataayu alxuraanul karim nee di jataayu xafaay nga xam ni Cheikh Sidil Mokhtar moo leen ci joxoon ndigal ngir di ko berndeele ak di ko ñaanale ku jaaj yi daan yóbbu baytil ay araam nee ngeen ka daan taxaw taxawaay bu rafet nee ba ci daaw nee na bi sëriñ bi xamee tële nga xam ni ñëwul nee na yow Cheikh mu ñëw nee na nii rek lañ ko taxawoo woon nee dara manquéwu ci woon nee na gannaaw mi tam kenn ku ne xam pas-pasam moom Cheikh Sidi Mokhtar ci liggéeyal lislaam ci liggéeyal Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ci liggéeyal maamam njar liggéeyal wayu juróomu sell wa lii nag bokk ci lim daan liggéeyal sëñ bi nee na daan fab jullit yépp kër bu nekk ci kër lislaam yi ak kër Seexul Xadiim yi mu fay jël ay nit di leen yóbbu bayti al aam nee ngir di ci liggéeyal sëriñ bi nee wax na fii ci biir bii nee sëriñ bi moo ko ko digal nee na wax sax nee léegi liggéey nag yim fi bàyyi bari na yim batale Cheikh Mouhamadou Moustapha mii di xalifaan di xalifa kuy bind bari na nee na bii nag dafa bokk ci liggéey moo tax ginnaawam itam li fi indi sëriñ bi moo fi indi Cheikh Mouhamadou Moustapha ngir ñu gunge ñëmbay daaram ngir ñu yóbbu Màkka ni ko sëriñ bi daan defe muy lim boo xam ni toll na ci ñaar fukk ak juróom-ñett nee na kon sant ci yàlla bu baax sant yi itam ndax gannaaw sëriñ bi de kuñ fi daan gis ci nekku sëriñ bi tey gis nañ ci jotaay nee na kon seen kóllëre ak sëriñ bi nee na mat na sëkk nee nañu fi daan indi ay teraanga ngir gan ñi ñëpp kenn ko ci nañ ko daan defee defe ko noonu ñu fi daan ñëw it ñëpp ñëw nañu fi gis nañu sëñ Basiru Abdul Xaadir gis nañu njabootu Cheikh Mamadou Lamine Bara bi nee kër bu nekk am na ku fa bàyyi koo ñëw ci jotaay bi ñëw teew bis bi ñi nga xam ni doomi sëriñ bi lañu di ay taalibe wala ay kóllëre nee kenn ku fi daan ñëw gis nañ na nee kon sant na bu baax nee na li Cheikh Moustapha wax nag sëñ Alaaji jëmale ko ci taalibe yëpp mooy li Cheikh Sidi Mokhtar daan wax daa xàlloon yoon wi ba mu set wécc mu awale ci ñëpp ba mu nekkee xalifa Cheikh Mamadou Lamine Bara nee na yaakaar naa sëñ Abdou Aziz Kañ fekk na ko ñuy wax ba tudd ni kii taalibe jiw la ci kër gi mu ne bëgguma dégg loolu kenn na fi am muy Cheikh Mamadou Lamine Bara nee na te fi nee na kon yéen ñëpp ànd leen tënku ci genn buum nekk taalibe Sëñ Bara te loolu it ci ngeen aw nee na bi mu mujjee daawu jéeg di ko ziar dafa ne li ma bëggoon ci yéen de ngeen doxale ko def ngeen ko te ku def li ma bëgg di am li nga bëgg kon li sëriñ bi bëggoon def nañu ko kon fu taalibe Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nekk rek na dalal xelam te góorgóorlu sëriñ Bara daan wax ni mënumaatee sama taay ba tiit waaye la tiit moom du ko gis kon ku am ku mel noonu si sa yoon bu mu nekk ci sa bopp yow boo xëyee nekkal ci ndigal bi tënku ci te bàyyi sa bopp ak sëriñ moom dana defar li war ci yow kon yéen taay bi sëñ baale yi dalal leen seen xel gën a góorgóorlu te xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara dañ fi jógee ak léegi juróom-ñett fukki at ak ñaar la quatre-vingt-deux ans waaye lu nit nekk nekk xale xam na dara ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mbaa mu dégg ko nee xale lu mu néew néew ay at boo ko lee sëñ Bara mu ne rekk léegi kon xam na lu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la ñu xam ca moom nag mooy wilaaya gi nga xam ni adduna bépp nangul lañ ko ko te kenn ku ne mën nga koo seede képp ku bokkoon ak seen biit nangul nga ko ku mbokkaloon lislaam biit nanguloon nga ko te loolu la ko waral nag mooy way joomu sell wa soxna Aminata Lo nee na bi sëriñ bi génnee tàkku saani suuf nee na ci penkub jumaa ji nee na ndax foo fii jumaa ji nekk ni moo nekkoon kër sëriñ Touba nee na tànn nekk diggante barabu sëriñ Touba ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacké nee foofee la sëriñ bi génnoon nee ci waxtu wi ñu toll nee na timis di waaj jot nee na sëriñ bi woote ni daa am lu sunu borom dogal dafa soxla man day sama ruw yii moom sëriñ Tuubaa Seexu Xaadim mu wax loolu waaye sama borom bàyyi na ma ni de su amee ku ma wutu fu ma de danaa àggale liggéey bi nee na soxna Xamidata Lo di jóg nee na fekk am na Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacke booba sëriñ Baara juróom-ñaari weer ci lay toll nee na soxna si daal di ni ko lii ma gis day nga yal ko jaam ñi ci aw yiw du ma seetaan mukk jaam ñi di ñàkk yiw woowee bàyyil ma doxali la loolee demal ca gannaaw néeg ba nee na moom soxna si nee na di ut ndox nee na wala ak matt ndox suuf daal di koy laal lii nag nee na la Serigne Touba def la def ci Serigne Bara jataay boobee da ko def ca moom nee daal di koy xamal ni ko képp ku bokk ci sa waa kër yow Cheikh Mamadou Lamine Bara dana dugg àjjana te kenn ko xisaab ne ko lii nag ci yàlla la jógee jaar ci yonent bi sallallahu alayhi nee na jaar ci sama jëmm ji nee na soog a ñëw ci yow nee na commencé ak jamono yow si nee na dana la ñee ci cër boobu nee na cër boobu bii nag wax suñ boroom ne ko defal mu def bàyyil mu bàyyi ca la bokk nee na Seex Sidi Moxtaar nag kenn ku ne gis na loolee ci moom kenn ku ne mën ngaa waat ci moom itam ñoom ñépp nag may googu ak wilaaya bi bi ñuy dem yóbbaale wuñu ko de nee seenu fay rek lañu yóbbaale ne lépp fi lañ ko bàyyi nee di dalal xel yi bu baax xam ni dara jógu fii jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke nee na Cheikh Moustapha mii fi nekk itam di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara nee na lépp daje ci moom lépp lu mu mën a def ci moom rek sëriñ bi def na ko ci moom lu mën a def ci moom rek kon nu bokk ñaanal ko ñun ñëpp yàlla guddal fanam dolli ak wér-gu-yaram ñu ànd ñi jërëjëf Mbàkke yàlla suñu borom guddal sa sant yàggal sa taxawaay suñu xarit bi dégg nañ lool yàlla yàlla defal lu jàmm waaw nee na dong yi ko siyaare sëriñ bi di ko sargale liggéey bii di ko sant nag lool ak bii moom it ci la di la ko siyaare di ko sargale liggéey bi sëriñ Tuubaa jëm si Modou Ba kon dañuy sëriñ bi Mbàkke noo ngi tuub mm, kaddu gi Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbàkke waxoon ñu ngi tudd Cheikh Moustapha Karim mi ci biir moom nga def si jataay Cheikh Moustapha Karim seen wàññi mu tedd war doon wax ni lu baax fu mu àgg fu ne ku baax ko fa àggale waaye bu saxee nag kuy defar rek Cheikh Moustapha Karim bi ñu tuddee jëmm bu tedd ji ci biir daan wax mag ñi leen lu baax fu mu àgg fu ne ku baax ko fa àggale waaye bu saxee nag kuy defar rek Mbacke mooy jotaay yi nga def àndoon ko sama jiw tëdd Cheikh Sidi Muxtaar ànd ak kooku taay bi ak jëmm yii ci biir incha allah moom la ñu ñaan seen fan gudd te moo la ci barke Cheikh Khadim ba wàcc na asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu bismillah bismillah